dajé bi def génn ko ci biir sénégal lim ñuy wan moy nit ñi da nga wara dem déglu leen moy ki ngay liggéeyandool moy ki ngay liggéeyal ki nga japp ni lég lég da nga koy liggéeyal mom go xam bo ñewul mëno xam lan lay jambat té gis nga jambat ni nak ak itam lég lég ni mat bi nit ñi di def ci gox yi ak gox xaan yépp lan lay wara mëna andi andante indi àndanteeg nag ñi ngi ko sékkal yépp moy responsable yi amul directeur bu dess wala ben responsable de projet wala de programme bu dess li ñi man def rek moy ñu jappalanté dégluwante yërëmante ki kii war a nag itam jot li xibaar mu def ko moo tax maa ngi ciy gërëmaale suñu naataango yi ñu am mooy ñuy wax délégué régionaux yi ak ñoom ñëpp ñu nga xam ñu ngi ci coordination bi ndax Sonaged dafa am càllale bu gudd boo xam ne ay bouton bouton bouton yu bari la bu ci rës rek mën naa yàqal yeneen yu bari di jaa jëfal nag ñi ñu romb ñëpp muy sunu ay nawle yi ñuy liggéeyandool man ñi ma dama jàpp ni bu ñuy liggéeyandool rek foo mën a féete même bu dee da ngaa nekk ci suñu partenaires territoriaux yi sunu nawle nga Ayo, dilek, dilek, dilek, dilek, dilek. Tapi pour mëna Euh, génne liy defal réew ndax réew Sénégal foofu la toll dañu war a lu bari wax naa ko rendez-vous yéen a ngi fàttaliku du am na ñu ma fa jot a dajal ñi jàpp ni ñoom dañoo fekkante ñoom ci leen doon liggéey muy parti ñeneen ñi jàpp ni dañoo fee déedéet ñoom ñëpp suñu ay frère lañ tey ji Sénégal bu élection passé dañu war a wëlbati luy affaire u xiiroo ŋaayoo ñu liggéey na noppalu parce que yow boo bis boo xëyeen bàyyi sa mbalit ñetti fan sa biir néeg boo moytuwulee lee doo ko saabal ndax doo doo yow moom doo doo ko nettali boo moytu feebar la lay jural waaye kon ngelawaay nan nu dimbali déglu ñu te jàpp jàppale ñu ñi nekk ci gox yi maire yi itam na nga ubbi seen i bunt ab maire buñ la fi degee da ngay dem alaakul yàlla mais da ngay ñëw toog nag nga ñëw liggéey ak société yi ñëw dina la jàpp ñun dañoo ñëw pour yokkal waaye xam nga lii ñu bàyyi nii ginnaaw muy ay infrastructure yoo mën nañ fay génne alal ju dul jeex ñu bàyyi ko rek buntu sax bu baax mënoo fi def loolu itam war nañ cee def taxawaay te maa ngi ciy woo nag euh, sama xarit yi nga xam surtout secrétaire municipal yi ñoom laa gën a yàq ndax tey maa ngi doon woo léegi ma dikkee na ma wóor yàlla ni bu ko déggee itam dina ci gën bàyyi xel li ci dess nak dañ koy agalé ñi sas xam nga ñi sas moy lan moy son excellence le président bassou Diomaye Diakhar fay parce que tay ji mom mo andi sétal suñu rew légui sax toll jé doon nekkon na sas mais mu jé nek toll parce que dafa yaatu chaque premier samedi mom mu nek fek nekk fi dina yabal premier ministre ñun ñëpp ñu and wàcce lu ma juroomi junni nit ci biir Sénégal loolu xam nga boko génné ci ay budget génné ko ci yeneen yi day doon ay jafé jafé lañ ci yok rek moy dañ ko def nak ak mbékté mais bëgg nañ ñoom itam ñu gën ñu japp